mais d'abord euh, mooy logique bu ma waxoon nekk dama doon liggéey depuis ñetti at yëpp ci benn album concept la mooy ce sont des chansons yoo xam ne comme ni ma ko falee di defee euh, thème ay thème la léegi nag ñi ngi à la veille tey suba ci grand bal bi grand bal ay événement bu am importance parce que suñu joué bareetul noonu donc ndax raison yu bare am na mais ma leen génneel morceau bu bees d'abord député Djino foog naa ni que ça va la première fois may génne morceau bu bees en live comme sax donc suba dina disponible maintenant bu ñu bëggee dugg ci contexte bi walla li ne ci biir woy bi li muy wax <coughs> mooy ñu ma ko seetlu te ñëpp seetlu nañ ko vraiment violence yi ñuy def jigéen ñi bu ñu nee violence nag am na violence boo xam ne sax wax kese la donc am na dóor am na wax ainsi dafa bare lëmbee na réew mi lëmbee na àdduna lëmbee surtout Afrique beneen bi bërki Dembo Ndiaye gis ngeen ko Nations Unies dafa tànn Sénégal ñëw indi rapport bi nga xam ne moom mooy wax ci condition jigéen ñi daf ko indi Sénégal bërki Dembo ba ñu ma ci euh, encourager bu baax a baax a baax. te man organisme yooyu yëpp suma liggéey des bu ñu ci gisee seen bopp dañuy ànd doo def ko dernière chose bi mooy morceau bi neex na foog na du ma leen jox lu neexul dernière dernière chose gars yi koor gaa ngi ñëw xam naa ni que bu koor gi ñuy sama compagnie nga xam ne que ñemewuñu xiif du ñuy jëlee seen problème ci mbedd mi walla seen bureau ñëw dugg seen kër di dóor femme donc déglu leen ko bu baax bu kenn nag tere kenn déglu morceau bi amul nag ci kër gi naan non non bu ko duñ ko teg wala kii duñ ko teg wala duñ ko teg na ko ñëpp déglu muy bul dóoru jigéen violence yi nag yi ñu def femmes yi bare na waaye bii laa ci tànn kon moom mu ngi noonu